ñaata minute la ñaata minute. a ah, loolu mënuma koo xam quand mais amul mi tam moom. amul lu yàgg. mi tam moom du fi am. lii nii day nuyu public bi wala. waaw. jërëjëf. kon mbokk gis ngeen loolu. noonu loolu waa këru Balla Gaye la. mais ñun est-ce ñun li ñu nekk si stade bi danañu jig. mais est-ce que lii baax na ci ñun lii de ay ay ay xasu koko la xaw si garabu koko la jóge xaw ma daal wala quoi mystique bi daa filmé laay lay lan laa mystique paan baa ngoog paan nga laaj Youssou Ndour moo ko yor eh, lii koko la koko koko garabu koko garabu koko mais est-ce ñun li ñuy wax dina ñu jik est-ce baax na si ñun jóg leen si ñun Sidi Adama Ngom mi ngi ñu ngi mystique ñu ngi dàq seytaane musiba ak balaa ak làmmiñ ak cat dañuy muslu ci seytaane wala boog dañuy woo jinne yi jinne woo Adama Ngom ak Père Diaw xoolal beneen mystique ñëw na beneen kees ñëw na tey mystique la bira a dagal lool ah waay Adama Ngom mi ngi yëngal stade bi waa kër Balla Gaye gi noonu ça c'est Guédiawaye c'est la jeunesse de Guédiawaye la vie de Balla bi ak ñangal bi ak ñangal bi ak kaala bi ak béjjën bi mais yéen ko yor Baye Ndiaye noonu di dugg moo yor euh, arsenal bi moo sa arsenal bi ñu ngi dee ñu ngi wax moom keer dee na ko Baye ngi kaalawu xool na bi am na lu muy baay am na lu muy jël ci saaku bi ay ndaala ndaala ndaa bu ñu musóor baay jël na ko baay da toj wala du ko toj waaw moom moo ànd ak Balla moo ànd ak mbër mi ngi noonu yor na ndaa bi baay ñaa yor na ndaa bi ma ngay daw tey bàyyi ngoog kii Sëriñ Lion de Guédiawaye koppati bu weex moo ñëw si Modou Lo Balla Gaye indi koppati bu weex Modou daa yéeg Balla Gaye daa yéeg est-ce que ñoom bokkuñu benn sëriñ. dañoo bokk ay ci côté mystique Modou Mbaye Balla Gaye koppati bu weex Modou Lo koppati bu weex Balla Gaye daa yéeg échelle Modou Lo dafa yéeg échelle Modou Lo moo fi njëkk quelques minutes après Balla Gaye door fii ci stade Léopold Sédar Senghor ànd ak waa këram waa ànd ak waa école de lutte Balla sangoon na xànc bi sangoon na ndaa bi Balla jox na ko ko dangay sànni na Balla day wàcc escalier dafay cëppelu nee na ko seq ko sexal bi béjjën bu ñu laxas moo sobu xong nañ ko butéel ndoxu ndox la xaw ma ndoxu géej la xaw ma ndoxu teen la xaw ma ndoxu robinet la Balla mi ngi sangoo Balla sangoon na ko nee na dama koy tuma nee man la Balla Gaye attention wane na doo bi Balla Gaye la forme après l'arrivée de Modou Lo c'est Balla Gaye andi wat bi même tent bi bi mu dajeeg Modou Lo moom la andi waat tey Balla Gaye Baye Ndiaye mi ngi yor ay yu weex ay feuilles mi ngi koy liiral Balla mi ngi koy wax mi ngi koy jàngal li ñu bind Balla ngay wax day jat wala day jàng alxuraan day jat wala day jàng alxuraan Modou Lo moom mi ngi daw fële à côté Modou Lo ngi daw à côté les deux lutteurs se retrouvent ce 13 janvier 2019 deux après c'est l'acte 2 Modou Lo Balla Gaye Baye Ndiaye dugal na feuille yi ci biir saak bi saak boobu moo def mystique yi saak boobu moo def mystique yi Baye génne na waat beneen feuille mi ngi koy jàngal monsieur mi ngi jàngal wala oustaz mi ngi jàngal oustaz mi ngi koy jàngal. mi ngi rampe wàcc na escalier yi njaab na escalier mbala njaab na escalier bi wàcc na mbala est-ce que du def 100 mètres. Balla Gaye mi ngi bi ak koppateem. seq béjjén bu ñu takk morso bu xonk ànd ak Baye Ndiaye ak waa école de lutte Balla ñoom ñëpp ngi noonu ànd ak mbër mbër a ngi nii il dégage la forme il pète la forme Balla Gaye le lion la mi ngi taxaw dafay ñaan dafay ñaan nangu ñaan nangu leen ñaanooy yor na benn taan boo xam ne dañ ko xaatim. kaan bi nduroog wàllub joow